opération bi nag li mu war mooy ñu def désencombrement mooy pépp fu nekkoon ay épave ou bien ñi nga xam ne ci yoon yu nga xam ne place waru faa nekk ñu dindi ko fa mais aussi ñu set setal ko ba set wecc loolu maa ngi ciy gërëm monsieur le gouverneur Dakar di gërëm sous préfet Dakar Plateau di gërëm monsieur le maire et ministre Aliou Ndoye ci effort yi ñu def yëpp ñu bu conjugué suñu effort ba opération bi am succès bi mu toll nii ci adhésion population yi mais aussi surtout adhésion ñu nga xam ne ñoo ngi ci ci euh, ci réel yu ñu jaar mais li ci am solo loolu mooy ndigalu président de la République mooy ñu baña a tey tey rek def opération bi nit ñu mobiliser wu mu rafet ñu indi télé yi ak yi mais dans une semaine ñu ñu delluwaat fi ñu toll nekkoon moo tax ñu jël ay dispositions ci ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mettre à la disposition 500 jeunes ñi nga xam ne ci xëy ndaw ñu la ñuy jëlee boole ko ak li nga xam ne ci Dakar Plateau la nar a jógee ñoom ñëpp si si autorité wu sous-préfet Dakar Plateau ak gouverneur Dakar ñu mën a surveiller le processus bien entendu ñun tamit danañ ñëwaat di xool est-ce que lii ñu bëggoon moo ci am buñ ci amee rectification ñu rectifier ko waaye dañu bëgg wax ne rek lii ñu tàmbali la ci biir capitale bi mais aussi dans toutes les grandes villes du Sénégal opération bi danañ ko élargir pour que parce que cadre de vie bu bu bu yamb droit la bu nga xam ne c'est garanti par la constitution konte nag xale yi doon daan seen doole te mais occuper illégalement la voie war na leen mën a xalaat te danañ continuer di wax ak ñoom ci opération ci ci ci politique bi nga xam ne président de la République moo ko fi def mooy xëyu ndaw ñi danañ xool nan la mën a def ba ñenn ñi ñu mën leen faa ñi nga xam ne dañ daal daan seen doole sainement mais ñi nga xam ne nga doon def leneen à la à la courte haleine rôle état mooy assurer la sécurité des biens et des personnes. dama ci yokk rek parce que li sama naataango Abdoulaye Seydou Sow wax euh, doy na sëkk parce que à la rigueur mooy maître de principale activité bi parce que ministère ak direction cadre de vie bi euh, ñooy ñooy yor un peu bésub semaine parce que buñ koy yóbbu feneen itam euh, dañ ñu ko baaxee bii yoon weer bu ne dafa am fu muy dem bi yoon dañ ko indi ci plateau te weg nit ñi. yërëm leen moo waral date bi nga xam ne chaque mois moom la ñuy jël ñu ñu pousse ko benn semaine pour gën a informer ni ñi gën leen a ñaax ñu jël seen i alal mu ñu bañ a yàqule muy benn. Euh, donc loolu ci ci weg la ñaareel boo gisee ñu ñëw nii guddi moom lii da faral na koy def bëccëg mais dañ ne guddi fii dafa xat circulation beeg yooyu nañu ñëw ci guddi gi peut-être pour mu gën a yomb mais itam ma gën a may temps acteurs yi ñu jël seen i bagages. donc loolu nag bu ñu ko deful dama jàpp ni ñu ngi lor seen bopp parce que aussi danañ la jëlee fi nga ne waaye di nga ñàkk astuut gi nga yor dara jaru yow boo nga nga denc sa bagage moom laa leen en tout cas wax ma leen de nee naa sommation bi ñu def du wareef parce que souvent nit ñi da ngay dégg naan jotuma sommation déedéet dañ ko def pour informer la pour nga jël say matuwaay loolu dong tax man ma jël yokk yokk ci loolu mais mënoon na ñàkk loolu nag ñu ngi ciy encouragé agent yi nga xam ne ci ministère de l'urbanisme la jóge encouragé agent mairie plateau waaye nag di beral euh, en tout cas sargal gouverneur préfet ak sous-préfet